aouzu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu uh, noo ngi leen di nuyu di leen ziara mbooleem ñi nga xam ne ñoo ngi teewlu mm, Bichri TV di jël nuyoo bi ak ziara bi di si jiital sëriñ Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di ziara bu baax sëriñ Mbacke Diop moom Cheikh Omar di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ak rakkam sëriñ Maxtaar mu mel na tey ñu ngi ci woote bi nga xam ne moom la sëriñ Omar woote woon ne woon woon doomam Cheikh Mamadou Habib ne woon euh, ñëpp ñëw fii ci Mbàkke santale ma yàlla waaye ci xéewal yi nga xam ne moom la ma sëriñ Touba defal kon mel na ne sëriñ Touba defal na koy xéewal yu kawe yu yoo xam ne Euh, jëmmam jooju lottoon na ci sant ko ba mu woote ne nan ñëw santale ma yàlla ci xéew li ma Sëriñ Tuubaa defal cant googee nag nag dafa am loo xam ne mënu ca ñàkk ndax fu nu wootee ak cant mel na ne dana war a ànd ak ay berne waaye dana a ànd ak euh, ak ñaan ngir ne jëmm ji nga xam ne moo moo ko woote woon war nañ koy jàngal ay kaamil di di ko ñaanal suñu borom ngir euh, li nga xam ne moom la ñu donn muy euh, li mu daa liggéeyal Serigne Touba ndona loolee suñu borom noo sàmm ci ndona loole ba suñu borom yóbbu ko fu kawe njortu. kon mel na ne euh, liggéey bi nga xam ne moom la ñu taxawu te sëriñ bi dénkuñu ko mooy euh, liggéey bi nga xam ne mooy ñeel diaspora bi yàlla dogal ma am ñoo xam ne ànd naa ko ñoom yàlla dogal itam ñu def ci liggéey bu am solo boo xam ne sëriñ bi bëgg na ci lool ba wax ne euh, gën na fee yaatu gën na fee baax gën na fee tawféexe loolu nag kàddu sëriñ bi la loo xam ne wax dëgg yàlla xolam sedd na ba wax na loolu kon ñu ngi leen di jaayefal bu baax ci liggéey bi nga xam ne ànd nañ ko Euh, du ñàkk rek ñu am dëkk yoo xam ne duñ ko ci ñàkk a tudd fu mel ne Espagne fu mel ne itali euh, ñoom it ñu def ci liggéey bu am solo boo xam ne wax dëgg yàlla ak euh, dëkk bi nga xam ne mooy Amérique ñoom itam def nañ ci liggéey bu am solo waaye itam ànd boo gis it du ñàkk jàppal ma diw. Euh, loole tax na nag ñuy lim rek euh, ay tur yoo xam ne euh, dafa mënta ñàkk ngir ne lépp loo xam ne jag na ci liggéey bi rek du sama jëmm ji ñoom ñoo jagal liggéey bi ku mel na sëriñ Mbacke Samb mi nga xam ne sëtub sëriñ Omar la ak sëriñ Serif ñi nga xam ne ñoo mag ci sët yi ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko ànd ak ñoom bokk bureau bi saa su ñuy def yëngu yoo xam ne ak réunion yoo xam ne lépp rek dafa ñeel liggéeyu sëriñ Omar bi jëm sa kanam euh, waaye itam ñu ngi ziyaara bu baax mbooleem njabootu sëriñ Omar gi nga xam ne ñoo nekk fii di leen jottaliwaale ak cant goo xam ne sëriñ bi sant na leen ko santuk xol ak cantuk làmmiñ kon yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci diaspora bi euh, na leen leer na daal kàddu yi kàddu yi jottaleeg cant la koo xam ne jóge na ci sëriñ bi sëriñ bi mi ngi leen di sant bu baax ci liggéey bi nga xam ne ànd nañ ko ak yéen. rawatina waa bureau bi nga xam ne saa su ne ñu ngi waxtaan di def ay ay réunion yoo xam ne ngir rek liggéey bi Serigne Omar bi jëm sa kanam ni ko Serigne Assane daa waxee nañ ci jàpp mu jolli jëm ca kaw ca kanam kon mbooleem njabootu Serigne Omar gi ñu ngi leen di ñaaxaat ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu bokk muy liggéey bi Serigne Omar nañ ci gën a jàpp te gën cee góorgóorlu te xam ne ngërëmal Serigne Omar a ngi ci ngir ne ngërëmal Serigne Omar moom dees koy des koy dees koy sàkku te itam jamono ji ñu ne day jamono joo xam ne eh, fala budda mënta ñàkk li tax ñu tudd ab murit dafa mënta ñàkk ci moom muy xaddiya waaw fal xaddiyatu yi ne ila saada wa xulwil maqamati wa kasratul maali kon eh, képp koo xam ne bëgg nga texe bëgg nga eh, xéwal yu yokk na ngay gën di fexe ba joxe xaddiya te gën a jàppaat ci liggéey bi nga xam ne dañ koy jégleel Serigne Omar kon mbooleem ñi nga xam ne sa sasoo woon nañ ci liggéey bi ba am si ñoo xam ne sa sasoo woon nañ deux cent euros am ñoo xam ne sasoo woon nañ cent cinquante ba ci ki nga xam ne joxewul benn dërëm it sax ñu ngi koy sant eh, ngir ne Serigne Omar moo wooteeg cant kon ak cant rek la ñuy def ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan ci barkeb Serigne Omar yàlla na leen taxawu ba li ngeen yéene liggéeyal Serigne Omar lépp ñu ànd koog yéen ñu defee ko ni ko Serigne bi bëggee ngërëm yi gën a kawe yàlla bu mu leen ump liggéey bi nga xam ne moom la Serigne Omar def ngëneel yi nga xam ne moom la ko Serigne Touba jagleel ba mu wax ne ñëw leen sant la ma yàlla ci xéewal yi ma defal xéewal yi nga xam ne nag Serigne Touba defal na ko Serigne Omar ëllëg yowmal xiyaam yàlla bu mu nu ump bi jaahi Seexuna Ahmadou Bamba Xaadimal Mustafa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu